mooy maanaam fexe jàmm am ci réew mi ndax yaakaar nga. ñu dem ci ay élections présidentielles. yu Khalifa Sall dul bokk Ousmane Sonko du ci bokk Karim Wade du ci bokk est-ce que yaakaar nga loolu dina indi jàmm. ban problème lay indi ban problème lay andi. ah non en tout cas ni ni ko na ma man que ñoom rek ñoo nekk ci réew mi nekk ay politique. ñaata parti politique ñoo am ci biir réew mi pap élection locale 2014 on était plus de 2700 listes législative presque 47 ou 49 listes su ma juumul élection présidentielle ku bëgg a doon candidat réunir conditions yi da ngay doon candidat mhm. donc ana problème bi mhm. gisuma ko mhm. Sénégal fii pap xam nga lu fi am presse bu ñu renforcer démocratie renforcer démocratie mooy presse boo xam ne dañoo renforcer liberté déggato fi journal bi ñu dóor marto déggatoo fi média bi et puis yow Pape tey yow xeexu Ousmane Sonko bii leen la leen jural yéen waa TFM groupe des médias fii te pourtant ñi fi nekk dañuy daan seen doole di liggéey seen liggéey fii lañ leen fekk saccagé leen ñii ñu yàq seen oto te seen yoon nekku ci loolu démocratie la loolu bëgg liberté la Pape man li ma gëm mooy Ousmane Sonko songul kenn ku dul aji Sarr léegi nag problème boobu c'est problème personnel vraiment man sax des fois du ma ci sax bëgg a dellu soit na continuer ci loolu te may ñu ñun Sénégal ñu continuer si liggéey bi nga xam ne loolu la ñu réew mi di xaare kon yow jàpp nga ni daal c'est très simple. c'est très simple élection mën na fi am kuñ ci condamné waruloo ci bokk doo ci bokk après mu jeex nit ñi dem seen élection mu jeex yaakaar ngeen loolu dina yombe noonu. na lépp jaar ci yoon rek. li yoon wax mooy képp koo xam ne remplir nga conditions yi pour nekk candidat kay ñu jox la ko loolu kay leer na. d'accord. bu ñu dellu see ci tur